Euh, salaamaaleykum cher internet univers info TV di amaat mbégte ak contentement di ànd ak yéen ndax ni ngeen di àndee ak ñun di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay waaye tamit di leen ziar tey nag ñu ngi nii parcelle ci décès bi nga xam ne mooy di Aïda Dramé nekkoon actrice fële ca daaray Kocc moom la ñu ñëw fii nag ci këram daal fi fekk ki nga xam ne moo di da doomam bu jigéen Jamil euh, mu génn àdduna nag moom Aïda ñu koy jaale bu baax a baax a baax ànd ci ak équipe bi moom la ñu fas yéene waxtaan ngir mu daal di def ay témoignage ci nga xam ne moo di waajuram bu jigéen na Jamil noo def. waaw maa ngi fi soxna si ñu si jàmm bu baax waaw maa leen bu wér waaye. ku ne xam na ni ñàkk waajur dafa metti nga nekkoon ak Aïda tey lan nga ñuy wax ci nga xam ne moo di Aïda Dramé. ah <laughs> naa di rek Aïda moom jigéen ju mën góor rek mhm. ko jigéen ju mën góor rek la waaw. di ko ñaanal rek di ko ñaanal rek waaw fu ko ñaanal rek suñu boroom seytaane bañ ko jiitu si fa mu jëm. Mhm. ayda nekkoon actrice yàlla def mu daal di tawat mu metti woon trop ah. ana tey yan kàddu nga mujjee mujjee weccoo ak moom. waaw bi ma fi mujjee de vendredi la woon ci guddi gi. Mhm. vendredi ci guddi ma ak moom ñu ngi toog di waxtaan mais mi ngi ma naan ah ñaanal leen ma rek ñaan rek a ci des. Mhm. loolu la ma wax ne ma ñaanal des ma xam ne kii mooy loolu daal waa xam nga rek damaa bañ ma rek ndax diggante yaay ak doom xam naa ne kii gis naa ko daal xam naa ne mooy loolu daal mais nanguwuma mais après ah doo ci mën mënoo ci dara après ci laa jug dem. bàyyi ko waaw. Aida ci tawat bi euh, ndax gisoon nga kenn koo xam ne tey jii nii ci daaray Kocc la nekk parce que nag foofu lañ ko xamee foofu la nekkoon doon bégal la li nga xam ne mooy askan bi est-ce que bi tawat boobu amee gis nga kenn ci ñoom koo xam ne tey jii euh, survenir na ko en net wala téléphone wala dara. waaw ah, wax dëgg yàlla moom xam nga du ñëpp ñi muy jokkal ñépp laay xam mën na am am na ñu mu doon dégganteel te xaw ma si dara waaw. am na tamit sànq ñu fi ñëwoon euh, mais am na tamit am na daal ñu fi ñëwoon sànq mais mooy loolu daal waaw. Aida ban feebar moo ko sonaloon ba taxoon ko mu tëdd ndax gëj nañ ko gis nag ci théâtre. lay dee moo ñëw rek nga dee moom bu ñëwee façon feebar bu ne lañuy wax waaw ku matle rek. dangay dem soobee yàlla daa mat la rek daa mat la rek te noppalu rek ay da kay daa noppalu rek mhm. waaye feebaru feebar bi tax sax ñu naan feebar la mhm. wallaay mhm. Euh, ku wax yaay ak doom rawatina bu jigéen dañuy nekk xarit mu nekkoon sa xarit euh, tey jii nii euh, lan moo la gën a marqué ci sa yaay ji nga xam mooy Aida hmm? kooku kay man aw ma xarit aw ma xarit bi ma dee jami ba léegi wallaahi ay rek mooy sama xarit rek Serigne Saliou moom kase mooy sama xarit waaw su ma jógee kër ga ci moom laay ñëw bu dul ci moom maa ngi suñu kër fee wallaahi yaay ju baax bëgg njaboot sax yaay joo xam ne bëggul oto bëggul kër bëggul dara ay bu ko neexoon mel ni ay moroomam lijjanti ut kër oto waaye defu ko Aida moom njaboot rek a ko ñor njaboot kasee ko ñor bàkki Serigne Saliou mu ne dama koy ñaan yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko yàlla fay xolam te fi mu jëm gënal ko fi mu jóge bàkki Serigne Saliou hmm. ngay yor sa borom kër di sëy tey jii nga gestu gisoo ki nga xam ne moo di Aida di dafa nekk loo xam dina dur tey trop trop trop ci yow eh, yaa ngi doon expliqué sànq moment yi nga xam doon na ko dundal ak yow ci sa biir néegu sëy surtout rëbeeg yooyu. Mm-hmm. li mu doon def de parfois da doon foog ne sax kenn du ko yëg waa kër gi duñ ko yëg fekk ni sama goro ñëpp ñu ngi koy bàyyi xel ci loolu. day ñëw ba sama fenêtre lu mu mënti doon nag muy xaalis wala ak lu mu mënti doon day ñëw ba sama fenêtre fëgg bu mane ne kookal la mu ne ma man la sa yaay ma ne ko yow mel na fi mënoo wiiri parce que mel na fi laa ko tuddee yow mel na fi mënoo wiiri ka taxaw fi mu ne ma eh damay dem damaa yàqamti ne ma am jox ma rek dem ma ne yow daal nii ngay dëkkee man man ak moom daal ay moroom wóor na yàlla comme ay moroom ndax man moom rek laa am ci xarit waaw loolu nag xam naa dina ma manqué surtout sama taatu fenêtre bi dina ma manqué torop wax dëgg fa yàlla ndax parfois bi mu feebaree mu gëj fa ñëw sax ma toog ba mu yàgg sama néeg sax di tourner xool sama fenêtre ba xam dina ñëw ma ne ah ki doon ñëw feebar na nag tëdd ba ñëwul kon kom am na lu ko téye ba nii ba nii wallaahi. sa mag bi nga xam ne mooy papa boole la ak ñun tey jii ngeen nekk yéen ñaar yan kàddu nga koy bàyyee parce que tamit nag yéen a bokk ngeen ñàkk muy Aida. ah waa dama ngay ne mu muñ rek. ma koy ni mu muñ rek man moom moo fi sama kilifa mu muñ te jàpp ma rek man mii di raqam mhm, ndax man moom laa am te moom tam man la am waaw muñ te góorlu rek te xam ne nag ah fu mu nekk nii responsable ñëw na waaw na góorgóorlu rek bu góorgóorloo rek am lu baax ndax Aida moom yaay joo xam ne la yaay ju baax yaay ju baax sax bu ñu yar nag teg ñu si yoon ak sëriñ saa ñun dañuy sant de dañuy sant bu baax na ay daf ñoo yar ay dañoo yar ba ba nit bu ñu gis sax day kontaan ci Aida yar bi mu ñu yar waaw yar bu yar rek loolu rek dafa neex rawatina mu yar la ba pare tegaat la jëlaat la uuf la ci kawam ah bu neexoon ne magum jëmm ngeen ku ci nekk na dem lijjanti boppam comme ni ko ñeneen ñi defee mais defu ko toog la def fi mu toog uuf ay raqam yëpp. ku ci nekk ñoom ñëpp ak ay doomu raqama ñëpp njaboote leen tey raqam yooyu yëpp nekkatuñ fi ñoom ñëpp gaañu nañ ay doomi raqam ñoo fi nekk ak man mi doomam ah damay naan xale yi ñoom ñu muñ rek moom de lañ fi dese woon boo waxee rek buñ jaaxlee rek bàjjan ayda bàjjan ayda nañu muñ rek nañu muñ te góorgóorlu ku ci nar def nii danga nga xalaat ayda lim la daan wax ko defee nga ñëwaat ay de ku ko xalaat doo juum de waaw nañu góorgóorlu rek laa leen di wax. Mhm. théâtre bi nga xam ne nekkoon na ci lu mu jàngoon la wala lu mu loo xam ne daf ko bëgg na jàng ko de da koo bëggoon rek bëggoon ko bëggoon waa Daare ko fu Daare Kocc dem mu topp leen fu Daare Kocc dem mu topp leen. Mhm. loolu rek la de mais wallaahi jàng ko li ñuy naan xam nga loo xam ne boo ko bëggee doo ci am kersa te Aïda moom dafa am kersa. mais taxul gis nga théâtre maanaam ma li naan rek daal loo bëgg daal doo ci am kersa looloo ko dal bëgg théâtre la def ay da tawat na sax dem ba kii di jouer ay sketch am na sketch jéeg bu bon dem na tawat na ba kii taxul da doon dem di ko jouer di wallaahi sketch bu neex sax ndeysaan mhm. sànq sa biir wax yaa ngi naan euh, ki nga xam ne moo di Ndeye Khady moom la daan di dikkalante mhm. waa wax dëgg yàlla daan na kiiwantee ñu bari mais man man bokk lu ci bari suma ma di waxtaan ak ñoom waxu Ndeye Khady la may wax waaw moom rek la daan wax parce que moom da ko daan seeti ñuy toog di waxtaan waaw. nga rek ak ni mel noonu wettalam xam nga ku ci nekk am na yoo xam nit dalay jubli jublu rek loolu la rek mais du dara waaw. ana tey lan ngay wax ñi nga xam ni instant bi dundatuñ ak seen yaay que douleur bi ngay sentir ñoom tamit ñu ngi koy sentir bu baaxam ah ñu muñ yaboo nañu muñ rek de <laughs> yaay moom ku ko ñàkkul rek doo ko xam nañu muñ rek te wax ñi nga xam ne ni seen yaay ñu ngi dundoo nañ ci profité bu baax ca jéem a xool nu ñuy tarboye seen yaay yi nañu tarbiyu seen yaay de am na solo de su ko defee ñu leen di ñaanal ñu jege seen yaay yi man de noonu laa daan dem man moom dama ko daan jege fu ma toll. am comme li nga naan xarit comme li nga wax li ma la wax sànq xarit xarit moom xam nga da nga koy jege foo toll. Mhm. man moo nekkoon sama xarit man moom dama ko daan jege dañ daan waxtaan waaw te man am na yoo xam ne bu ko waxtaanu la moom sax mu indi ko bu ma rus say yaay laa mu ay da mooy loolu. ay noonu daal ay daal la noonu ñu fi des daal ñu seen yaay des nañ góorgóorlu jege seen yaay di waxtaan ñoom am na solo de. ni maa ngi sant bu baax maa ngi sant ma amee yaay bu mel ni Aida ndax xamal na ma ci àdduna loo xam ne ah xamal na ma loo xam ne daal rëccu ma ko ak sëriñ Saliou rëccu ma ko de dama koy sant rek di ko gërëm. Mm-hmm. lay bu baax a baax équipe univers info TV bi yëpp di la ko jaale tamit encore une fois. waa yéen maa lay sant bu baax waa univers TV waaw maa leen sant bu baax waa di wax nag li ngeen may def loo nii mënu ma ko de <laughs> mënu ko. rawatina xam nga rek ngeen ma teg ci écran dina doy waar trop mais mais yàlla pare na yàlla pare na waa waa kay jaajëfatee